Ngakere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex fi wala location Moham xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cën na mu Gawé a gaawee fakal mettre en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko défé ñu ñëw sa biir kër dal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu euh, leer nañ ak ay vidéo yu doy war dal di koy poster ci sunu page bi social shopping immobilier bu ko defee yéen ngeen woote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex na ci réew mi. bëri nañ jàppante nañu naan xadi fa xati nako pap ñoy dana ko dana ko daan wër nako ko wëral na wuy sama nday mu ñoon mbokk yi lam ji commencé na samedi 28 décembre 2019 xadi fall gën ko si xam kifa moom ak Pape ñu ngi ba léetoo bëri nañ jàppante nañu ñaar xadi fal na ko Pape mu ngi way dana ko dana ko daan wërale ko wërale ko wuy sama ndey photo photo la waaye photo bu leer moo tax ñuy wax ak seen label de shooting bii di social shopping shooting moo leen di gunge ci ñaar yëf waaw ñaari yëpp nee ma benn seeni ay cérémonie moo xam baptême anniversaire mariage dañ leen di defaral ay photo yu ànd ak qualité yu doy waar yemul foofu dañ leen di defar ay vidéo yu am cas ànd ak catu cas bu ko defee nga dégg daali ci loo mënti def ndax xam na nu yéen ñi gañ ngeen bëgg te ñun ñuy waa social shopping shooting dañ leen di defaral li gën hee waa lii neexul romb na neex beneen bi gën a neex nag mooy yow mi nga xamante ni top model nga nga war a wone sa ay produit dañu lay defaral ay fond en nature yu doy waar fond vert fond rouge lépp la nga xamante ne day taaral sa ay photo pour sa produit gën a mën a jar boo ñu woowee ñu defaral la ay photo yu am solo daal di doy waar yamul foofu la ca gën a neex mooy yow mi nga xamante ne dangaa bëgg sañse daal di bëggal sa ay soppe boo ñu boo ñu woowee ñu ñëw ba sa biir kër defaral la shooting yu amul fenn wala nga ñëw fii suñu studio ak suñu ay fond yu am solo ñu defaral la ay shooting waaye yow lii tam neex na de li gën a neex tubaab fakal la boo ma woowee ma wax la ko ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping shooting waaye dama ne ay photo day leer ànd ak qualité. Fata